فهاسه سلام مني إليك maarihi han barrin wa tiibi miska damay walbati mboolem wayi ni soodaan دواير سدبات بجرد سيتان سما قاطر دبروتاني بوري كاجور ماي ويكي جراوي مونيو توسي ايلير ماي جوال بيكي الاسلام قمال مكودون كون ما ويلا تكن لا يا دون ربان سيروب غنيل بيغا لامبو تي دين الاسلام سوبي بلا كو جوخ مو هيون تقديم كود بو yaa mi woo ñas yaa di jantu saxal nga fi ay leer tekki mbóot yu day waar maa ngi lay yalwaan yow mi doon na tiijaan may ma saame betam xol ma dee ci liimaan fëgguule nañ tibbal ñu ndax ñi jog ci beekoor rafle nañ xodduñu kon ñi baali ñey gaar sag waloo gën a gaaw xoomu fàdda bay buur say xiwal gën a baa tiwaawan ba mel ni aw niir saxaatee gën a wér yaay xaliilu rahmaan baloo wax borom kun dal denan fa yakun sa xar baax yi nga laam boo sewal na doktoor de koo tam mu wér far du dem ci doktoor koo tam li lor wi tafal ko bushra mu tàgguk loru duniya kadaaka uxra dama sob di la way waana raw nga sang ma lii tax ma di la way ngaa ni doog borom Faas sa mbootam kalimbaaraw da boosu Muusa sa way deey nga dekkal toon na Isa kuy murit na ma ñëw la Seydi Baraham waaju xam mën a ràññ te soppu Baraham mu jox mam xaatir mbaamu may ma zaw koom te baawaan mam kal mbaamu may ma fahmoom kon dinaa mën way kii fi gën ci soodaan na de xóot borooyey naa ni pey na déglu leen ba ma delloo ti kañ ki gën fii ci azal la ko buru jiitaloon duhul fii barhaama ba nga rootee ba say bagan fees baawal nga ñala doon xaar ba seeni ndaf fees xaalam ak alalam moom la jaay ci lislaam bur siñal ko mu wér a jox ko xat mu doom su ngeen xamoon ak may saa yu nekk ngeen teew bañ a liñ kër bañ a nga de ta ngeen saxoo waaw ba tu kañan dafa bam teen du seetlu xar baax kon ñi ba nga wàccee ñu xam ne yaa baax mos la jokkat baayam taraw ci lislaam benn sëriñ mënu fee wax ne dem na daaraam su kañaan amu doon loolu moo de ak mbaax su fekkee nga yéem loolu doy na xar baax bam yore nitti hat laa dajal ba coora te raw na kuy maasam ne hat yewey daawa bam yore hara fuuka la sampu daaraam da ay ma salaam boole koog maqaamaam si rub nganeel bi nga làmboo ne xut ci ay mool yaay xutbu yaay xawsu yaay saydi rijaal la tuuti wulu réew li di gàttu li duhun njool jëmi rasuulu la yoro ñoo dooba cag mool la yaay nelawit xol ba mam ma ngay xool la cay roxu gaara sa kursi yu calay beel la te buñ ree muñ xarkanam bani weer kaar waara te waareem gën a neex lam ca xol ya muy waar balaa nga ko yéem loolu booba aw naqar feeñ soo koolee barahaama gis ko muy muñ mooy jikkoom jamu doon ne te saydi Adnaan dogal bu bala doy loo di kun fa yakun faalexul addinaak li ci biir dafay niil xencuhul loo mooy yàlla ak nabi daal mos lu am ku ci halal ba ne soo looyi dam koom du ko beng loo xamul ku muy fay konte hul ay kontuute mooy ni tax rabbu samawati wal ardi doy na koo jeex te man doo ragal yàlla tabee ci lislaam te toolam ba du boy moo de yoonu jàkkaam itam jamoo gën a xiir gaynde mbooy a guy buur karaama yaa gën a rëy du sigol fay dóor ay botom dafa for mel jaani sama raxmatan gën a xiiti faqiira miskiin suquuli nga sunu rox ya sooxoon te gulmaan ni ñaamin kabu mbaal jem ba wer sendangaan saliima ko toy ba bam kol azamaan war na jubaay caagante topp say waaw rabbul jaliila ko fal jokko manto rabbaan fal ga mooy fali doomam si wal na lëb wal takun umatan moom la waa falaaho soot ku aw ci ndigalam xami lay na soot bañ yore suñu haajoo siyaare Madina bañ demee ba ca pomda mu des fa njooraan jëmam jaata sorofu xol ya bañ jon ak baay ba duñ ne belloo may topp koy takkoog moom meloo Yuusufa la jël kii rawoon ci ay tàngaar be ku janag mam soppu ka ndax fayar leer alaaji suñu mam dan na wax ne mooy xaas moom ngay xool naw le yaa batu maas la xalil note woon naaru bañ ko joxoon la baraam fayee balaa fii ci soodaan loo qadir note musa fama u xaya la suñ bày yari roomam bi isni maxya jullil nag ci rasulu a muxtaar salaatan wa tasliman ma fa xerafaan tudee naa wi la way saabiqaatu jihaad ci kursum ñi fi daan way imaamul ibaad faral xatmu sa way wii taxam fi yow caam neloonim limitim doo dajal barem caam xasaayid yi nga taalif manee su koy mool jaayib yi nga sànq fi wal na la daan day daa illallah daa illallah illallah illallah

عن فؤادي أحمد الغم والكربان وثبت فيه الذكرى والشوق والحبان فإن رسول الله أنسي وراحتي وروحي وريحاني متى أحرق الحجبا محمد محمود وأحمد حامدون عليه صلاة الله ما طهر القلبا تأكر بعد رسلي وهو مقدم فضد بضد حي يرى العقل واللبا ويمردني بكراه طورا وطارة يمردني هذا كأحوال من حب الله لا إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله قد استأسل المحبوب كلي وجملتي فواصلني والغيب رياض تولتي وها إنها سالحبة غيب إلهنا وقلب الورى ثابت فيه تجلتي وصلت عليه فهو بطن وظاهر فصاهره عبد وللبطن صلتي أفاط له منه إليه فحالني محيا رسول الله ولا عين التي فتيمني شوقا وعز لقاؤه إذ العيش لا تجديه والأقدام الضل التي أهيم به طورا ألس بسكره فأهلو طورا لم أرم غير وصلتي وطورا أرى الحياة مريرة وطورا أرى هابويتي ثم والتي فتذكار الطواري بشوق حبيبنا تكل قلامي وهو عين مضلتي صلاة على هين الغيوب وغيبها وآل وصحب من عيون طمع التي لا إلا لا إله إلا الله إلا لا إله إلا إلا الله la la la إلا الله لا إله إلا الله ذكرت بقمري إن هممت بسربه سكرت التساسا منك في فرط طيبه بل السكر قبل الكون والكرم لم تكن وما ثم خير القم رويك بشور به ومت غراما في المدامة فعجبوا ببرهام عبد الله من فرط حبه وجدت حبيبي بعد موتي بحبه هو العاشق المحبوب بمن فرط قربه فأرسلت نفسي واعظا وهي لم تعظ سوى مجيبا لي رسولي وحسابي وقد صرت إنسان العيون وعينه وقد صرت إمدادا لهجمي وهربي بفيضي صيد البر والبحر جملة وإني نفس لله أميري وصاحبه في ولايتي العصمى تحققت أنني إلي ومني ما يفاد لسور به أن النفس والآلاق مهما رأيتها